te ginnaaw di ko yàqat waaw ah, loolu moom daal mooy itte ji nañ fexe ba sàmm ko ba kenn du jaar ci ginnaaw itam di ko yàqaat gannaaw loolu itam dañ niñ ko doon waxee fii ci kolobaan am na loo xam ne ni moo xaw a mel noonu ba mu demee itam jëwriñ ji njëkk ji dem na sol dàllam xool itam ña fay jaay ak ay jënd waaye itam xool mbooloo ma fa nekk ak askan wa gën a saafonte ak ñoom ci li nga xam ne itam moo doon taxawaay bi nga naaw yemul foofu nag ndax woolul na leen ñu fekk ko fa nga xam ne moo doon màkkaanam mu waxtaan ak njabootu kolobaan googee ñu teewlu ci aram ndaw waa kolobaan la fi premier ministre dalal délégué général marché bi ñi fi yi Nifitewal, chef de quartier yi jigéen de Kondoyi. yi muy beneen jotaay gannaaw premier ministre seetsee ci dimanche bi xamal aussi njiitu jëwriñ ñi nako, 2004 lu melni bon am am sax confrontation 2006 lu melni amna, am gi préfecture lu mujjee ñu waxtaan ci ba 2009 ñu xeex ci ba portante ci plainte ba ay menace de mort am ci ñu ci wat ci jamm suli lii day mëne ne bi mi ngi fa ba tey te il faut que ñu waxtané ko bu jeex ben yoon. naka sax bi nga waxé yow da nga wax wax ci ndax da nga problème bi du koloban kese Ni koloban am lem koloban mo am asalem mo am castor mo am kawlax mo am un peu partout Sénégal problème bi moy marché sénégalais yi depuis l'indépendance ba légui ni marché melone non la mel. dafa laaj ñu toog ñu defaraat ko defoon nañu fi benn réunion interministérielle en 2018 bi marché Petersen lakkee ñu ne woon dañuy wax ñu teg agence modernisation de marché muy Promosem mais agence boobu bi nga tegee agence boobu demul. waa Colobane wax seen jàmbat nu mu gën a yaatoo lu ci bëri aju ci marché bu xat ak ay gàllankoor ci dëkkuwaay yeeg nekkin wi balay dara ministre de l'intérieur xamal leen lii. Mais c'est la première fois que je vois un maire qui n'est pas destinataire d'une circulaire. Hein? Mon ministre de l'Intérieur, mon centre. Ministre de l'Intérieur du centre maire d'Ara. La femme, a de pouvoir déconcentrer, à pouvoir décentraliser. Ma circulaire s'adressait aux autorités administratives. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à Rufusque Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes à Rufusque. Le truc, il était bien encadré. Je pense que vous avez d'autres problèmes à, à Coloban, tout le monde s'est engouffré dedans, et n'est pas très, très, très bien. muy Colobane di feneen gouvernement bi daa bëgg problème yi am saafara premier ministre rafetlu taxawaayu ñëpp waaye tamit indi ay leeral. monsieur Bokoum li mu wax yëpp mun naa ko ne li nga wax yëpp accord naa ci à cent pour cent li mu wax yëpp te di leen félicité it ndax patriotisme mi ngi commencé chaque jour ma wax na ko patriotisme mi ngi commencé sa kër ku nekkul patriote sa biir kër munoo ko nekk ci sa koñ te ko nekkul sa koñ mënoo ko nekk ci eh, commune bi waxuma la ci département ci région ak noonu lay tasaaroo ba réew mi yëpp donc lim mu wax yëpp ci constat d'accord naa ci waaye monsieur Bocoum ñaar moy problème bi bu ñëk moy problème timing gis nga lo gis dafa am nuñ koy régler amna régime buy doga exi parce que li nit ñang koy dund depuis des années xanaa kay dinañ may tuuti régime bi doog a egsi mu euh, cadrer li muy def proposer des solutions commencer dérouler loolu am na ci solo. premier ministre bëgg na tamit ñu xam ne pression du ci am. yenn problème bi mu commencé am gis nañ ñenn ñu ne way waxuñu ñu woon lii war nañ ñu et cetera déedéet c'est-à-dire suñu gouvernement du subir benn pression wala benn chantage ñëpp la njaboote te dina leen njaboote teg ko ci yërmande mais yërmande dàqantewul nag ak fermeté kon quelquefois pour le bien des gens et pour le bien collectif di nga dëgëral fu dëgëral waree mais dañ ne ci réew moo xam ne rapport bi am diggante bi daan am bokk diggante état ak nit ñi mooy toujours rapport de pression la de chantage de menace bu état bi deful lii ñun lii wala état bi war nañu wala dootuñu ko woteel wala wotewuñu ko woon ngir lii déedéet nun nekkuñu ci dynamique gu xool ay mandat mandat boo dee ñëw rek dina ñëw yàlla koy joxe lañ ci war a def nañ ko def mais mandat bi ñu jox nii pour ñu defar réew mi liñ ci war a def pour réew mi defarul nañ ko def bu ñu yeggee ci cappaandaw sénégalais bu ne dina xool est-ce que résultat ñëw na wala ñëwul mu mu xool nu muy tànnee ci base boobu moo tax autant duñu duñu nangu ay riverain di régler sen bop autant it commerçant mënul ne sama njëriñu bop rek la xol ba tax dañ ma wara bayyi parce que ndaw la dama wara a liggéey ah suñu deful li dañuy dem agressé ci wala dañuy dem dédé bëgg liggéey du tax galor kenen lol ta mënul ne et y'a un juste équilibre à trouver entre tout ça. kon ñaax na ñëpp ci muñalante waaye nag am na lu mënul ñàkk. li nga xam ne lu leer la te lu ñu mënul nangu te instruction yi ñu joxe nag fépp la ci marché yépp ci Sénégal ci fépp la mooy tali bu ñu defar nag boo ne ko defaral koy trottoir mënuñu nangu nit ñëw bloqué tali boobu ba oto mënut faa jaar kooku moom duñ ko nangul kenn parce que loraange weesuwut loolu. dërëm bi ma war a am warul tax ñu bloqué benn tali carrément ba auto mënu faa jaar kooku du bokk ci tolérance bi bu weesoo loolu nag ya ca des la ñuy ñaan ñépp muy riverain yi muy commerçant yi mooy ñu muñalante tuuti kon ay mesures d'accompagnement en attendant les mesures structurelles yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi terminé togg gi te dinañ ko lancer ci fan yu néew di ci woo ñépp nag ñu jàpp ci mesure d'accompagnement mënul ñàkk ci solution yi ñuy wut. bu weesoo Colobane premier ministre bëgg na kàddu yi ñëpp bàyyi ci xel ndax du Colobane rekk am problème marché yi dund yi la jafe-jafe bari nañ kon premier ministre ne nañuy farlu rekk ci mesure d'accompagnement yi du gunge commerçant yi waaye buñ leen gunge ba noppi. la ca war ci liggéey ñu mën koo matale. jërëjëf Aram euh, ba tey itam ci xabaar yi xam la déggoon nañ leen ne dinañ leen indil nimmiku bi nga xam ne moom la jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi te mu jaboote leen xam naa ni incha allah euh, ci yeneen xabaar yi dinañu ciy dellu si euh, buñ ci yàlla yóbboog jàmm mbokk yi kon loolu moo di fi ci yàlla xabaar dëppoog li nga xam ne moom lañ ci loon ci yàlla waxtu li ñuy def nag moo di di leen ñaanal gaal bu mu ci dee ci géeju xéwal Environ la moitié des Nigérians sont connectés à un réseau électrique national incapable de fournir suffisamment d'électricité. Et dans les zones rurales, la situation est d'autant plus difficile puisque beaucoup ne sont pas connectés au réseau. À l'école Excellent Moral à Ibadan, le fondateur explique comment cette situation affecte l'apprentissage. Il n'y a jamais eu d'électricité ici. Nous avons fait des efforts rigoureux pour obtenir un transformateur et nous connecter au réseau national. Mais jusqu'à présent, nous y travaillons encore. Cela affecte tellement de choses ici, en particulier l'éducation. Car de nos jours, l'apprentissage va au-delà de l'écriture et de l'écoute des enseignements. L'éducation est devenue numérique. Et sans électricité, on ne peut rien faire. Les établissements scolaires nécessitent des générateurs alimentés à l'essence ou au diesel, mais avec la suppression des subventions pétrolières, les coûts du carburant ont augmenté. Notre principale préoccupation est cette école. Nous ne voulons pas la perdre. Beaucoup de gens partent sous prétexte qu'il n'y a pas de lumière. J'ai des proches qui ont déménagé simplement pour cette raison. Et lorsqu'ils partent, nous perdons des élèves, car certains doivent partir avec leurs parents. Les coupures d'électricité affectent aussi l'éclairage et la ventilation des salles de classe, rendant l'environnement d'apprentissage difficile pour les élèves et les enseignants. Et Bounola Kinoale, propriétaire du café Nature Street, partage les mêmes défis. Elle craint pour l'avenir de son entreprise. Si rien ne change ou que la situation empire, je vais devoir changer ma façon de travailler. Je vais probablement me concentrer davantage sur la vente en ligne, peut-être fermer une ou deux franchises et même acheter des vélos et faire plus de livraisons. Il va falloir repenser le modèle de cette entreprise pour réduire les coûts. Je ne fermerai pas le café car je suis très passionné par ce que je fais, mais je vais réduire ma dépendance à l'électricité. Dans un pays où le soleil abonde, l'énergie solaire offre un espoir, mais convaincre les investisseurs de financer des projets reste un défi. Les très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, jouent un rôle clé dans le développement socio-économique durable du Togo. Selon le ministère du Commerce, ce segment constitue plus de 90% du tissu économique national. Les TPME contribuent à hauteur de 40% au produit intérieur brut togolais et génère 60% des emplois. Les données du ministère révèlent que 75% des emplois dans le secteur privé sont générés par l'ensemble des TPME et qu'en moyenne, une TPME crée